ravi de vous retrouver amis fidèles euh, internautes euh, Sénégo Kawtef ñu ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax euh, di leen jaajëfal di leen ndokkel waaye di leen masawu di leen wax si gi leen ndigaale ndax tey Sénégal mooy ñàkk tey nag ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Sakal si booru Louga donc nag accident bi nga xamante ne dégg nañ ko si suba tey jii vers cinq heures du matin la am si kaw tali bi nag la xewee aux alentours amul kër amul dara àll la moment ni ñuy wax ak yéen Sénégal kawteef ñu ngi fii présent ngir rek diktal leen euh, lépp li nga xamante ne amoon na fi actuellement li nga xamante ne moom ngeen gis en image ma ànd ak sama cadreur euh, góor gi donc mu ngi jël li nga xamante ne mooy njëgënjaay bi njëgënjaay bi nag actuellement dara desatu si mais boo leen xoolee si biir euh, njëgënjaay bi mu ngi am ay sachet mu ngi mel ne rek passagers yi ñoo ko moomoon y du sang deret ji mu ngi yaa ngi yéen a ngi koy gis fépp ay dàll góor muy basket di plastique waaye itam ay yëre jigéen sax nag gis nañ ko fi euh, ñu mel ne rek jot nañ ci information ñu ne euh, accident bi dafa amoon li nga xamante ne moom mooy 19 morts ce matin loolu réseaux sociaux yëpp ano euh, annoncé waaye rek bañ ñëwee ñun sur place ñu ñuy xamal ni ñeent dooleeku nañ ci si blessé yi doon li nga xamante mooy limub 23 décès donc nag euh, actuellement nii ba tey ñu ngi fii si euh, Sakal ci euh, département bu Louga région de Louga comme ni ngeen koy gisee actuellement daal be tamit maa ngi koy wax plein de sang mu mel ni rek góor a ko moom góor gi comme ni nga koy gisee nii si kanam mën nga ko zoomal téléspectateurs yi ak internet bu ko defee ñu mën a gis bu baax yéen a ngi gis lee may seen ne dàll la tamit mais mu ngi mel ni ay dàll xale la yoo xamante ne ndoxandeem la rek bariwul li nga xamante ne moom mooy ay atam musóor bi takk deret euh, ba kii euh, góor gi mun nga ko jël euh, mu ngi ni sa kanam donc nag mu mel ni nag musóoru jigéen la kon ay jigéen ñu ngi woon si li nga xamante ne moom mooy njaganjaay bi nga xamante ne moom Euh, def euh, nii actuellement donc nag ba tey comme ni ngeen koy gisee ñu ngi gis ay euh, nit nànk-nànk ñuy ñëw ah ziar nañ leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax alhamdulilah voilà donc nag góor gi yaa ngi gis mbaxana baara yi comme ni ko xale yu góor yi di waxee xamuñu paa moo ko moom xamuñu xale ko moom mais en tout cas góor surement moo ko soloon gis ngeen beneen patt daal bu bula bu mu gisoon sànq te ñu te mu amoon euh, feesoon dell ak deret si côté oto bi mooy Ndiaga Ndiaye bi mu ngi nii beneen pat baa ngi nii mu doon lu métti trop trop trop trop waaye tam mu mel ne rek ay góor yi nga xamante ne ay jàmbaar ñoo si nekkoon parce que boo xoolee sio bee eh, góor gi nekk sio maçon ñëpp xàmmee nañ ko leenee di ay matériel de travail donc mu mel ne rek ñoom dañoo jugoon di dem liggéey ndax fajar 5 heures du matin ku si jug yaakaar naa ne liggéey rek nga war a mën a dem defi ci donc ñu ngi leen di masaw bu baax a baax loolu tamit lu jara a laaj la muy benn mbaam donc danga may daal di topp ñu dem ma wan leen mbaam yi parce que dañ fee tasanteeg euh, suñu benn càmmiñ ju baax mu expliquer ñu li ni mel mu ne euh, vers cinq heures du matin la accident bi am fii waaye rek euh, lu ko occasionné mooy mbaam bi moo doon traversé camion bi di jóge nee di ñëw Euh, beneen njege njaay bi di jugee ne di yow ñoom ñaa ñëpp di ko moytu ba far nag mbëkkante comme niñ koy waxee collision donc nag mam bi nag moom tamit dafa mujj rek décédé comme ni ngeen koy gisee nii si image yi euh, góor gi mun nga dem si beneen côté bi nga jël ko wan ko internet yi ñu xam exactement euh, information bu leer te wóor bi nga xamante ne moom la Sénégal ak kawteef am fii si Sakal gis ngeen mbaam bi moo doon jéggi far yàlla nag comme fii àll la donc mala yi dañuy faral di traverser amuñu heure amuñu minute amuñu seconde buñ ko bëggee la ñuy traverser donc nag mu ngi nii ñoom moom muy traverser camion bi di jugee na le njëkk njaay bi di jugee de l'autre sens ñoom nag ñu mbëkkante moom bi mbaam bi occasionné accident bi sax moom tamit daf see mujj décédé donc nag mu doon mbir boo xamante ne mbir bi doy waar la te bu ñu fàttalikoo fan yi rek si ginnaaw. état jëloon na ay mesures si accident accident bi nga xamante ne yàggul dara amoon na bu métti métti métti occasionné vingt neuf morts bu mujj gi sax euh, am ay blessés yi nga xamante ne seen mujj ñàkk seen bakkan ba li nga xamante ne mooy bilan bi mujj métti Sénégalais yëpp am nakar donc deuxième accident bi tamit muy bu tay bi fii si Sakal métti vous avez vu de l'autre côté sapeur pompier mu ngi ñëw mu mel ni Kaffrine euh, la jugee ndax Kaffrine 2 lañ si bind ñu ngi gis tamit fële ay nit donc góor gi dañuy daal di avancer na lee vu que ñun ba ñuy ñëw gisuñu fi woon kenn ñun kese ñoo fi nekkoon ak gendarme yi donc il fallait que ñu wan leen image yi camion bi mu ngi de l'autre côté njegeñaay bi lañ leen doon wan nu muy yàqoo tas tasar ba amatul benn pièce bi nga xamante ne tey jii nii mën nga ko see seppi donc camion be nekk nii. devanture bi góor gi dina leen ko wan léegi nii dafa mokk rumbax plage chauffeur bi gisuma gisuñu chauffeur bi xamuñu dafa euh, décédé wala déet waaye bu décédé wul tamit wax na sonn parce que camion bi it euh, moom tamit euh, mokk na rumbax si kanam donc mbaam bi daal indi na fi jëya boo xamante ne muy deuxième jëya sax si biir si biir semaine bi nga ne lan sëñ bi. kenn talaasu ko noonu lañ ko bàyyee fii Louga kenn talaasuwul tali bi. amul benn lu lay wan ni fii virage la wala dara la tali dañ koy tracé ku ñëw xam ni fii war danger la wala dara mais tali bi depuis Ndar ba Louga ni la mel. na ba tey ko noonu lañ ko ko a ko te lii danger la quoi dañ ko war tracé ba ku ñëw xam ni fii fii danger la wala dara. wala yow noo tudd. man maay Samba Diagne maay dëkk Paal. Paal non fekkuma fi mais damay faral di jaar fii quoi dem Louga. Ah, d'accord sa yoon la dem Louga sama yoon la waaw. d'accord mais da nga fiy gis lii gan moom bu fi jaaree ñaar toujours dafi def soog. d'accord waaw boo ko xamee tali bi mooy gan tali bi quoi mais ku miin moom dina xam ni fii baaxul wala fii danger la wala yooyu. parce que rek à vitesse ñu. waaw day dara dañ ko war a tracer ba ku ñëw xam ne fii danger la wala fii kenn warul fi dugle wala dara te yooyu yëpp amu fi. Euh, ma laaj benn question nee nañ benn mbaam gis nañ ko fële mu tëdd euh, de gaañu nee nañ mbaam bi moo doon traversé parce que fii boo xoolee àll la mala yi dañuy ñëwee fu ne. waaw mala yi bari nañ mais waxuma sax mbaam yi waaye gileem yi fan yi noonu lañ fi bari te gileem yi nga leen ñu daw song tali bi loolu état moo ci war taxaw fii kenn du sàmmukaay ku yor say gileem yóbbu ko sa àll ba waaye yor say gileem bàyyi leen fii ñu taxawaalu boo génnee paal jëm Ndar am na ñaari gileem yoo xam si benn particulier moo leen bëgg te kooku xam nga ni particulier bi borom yàqu na bu kii euh, gaañuwul mais oto bi yàqu na léegi dañu war a fexe ba giléem du duñu taxaw fii àllu sàmm dafa am ñu yóbbu leen fi ñuy sàmm ñu sàmm fa mais dara kenn du wax kenn dara lu waay neex waay def moo taxit lu ne ngay gis. ba ministre bi ñëwee fekk na le fekkuma fii mais gis naa ko gis naa ko am na fu ma ko seetaan ñëw na fi waaw. d'accord ñu ngi lay jaajëfal xam naa daal loolu moom lu buñ ko tracé woon ak ñiy sàmm giléem yi surtout bare nañ fi trop trop trop te giléem xamul tëli léeg-léeg da leen di romb ñu daw song tali bi. gendarme yi nga xamante ne gis nañ leen fi tey ñu fees fi dell dañ fiy faral di nekk wala tey accident bi moo tax. montage am na fi montage bi moom am na fi am na fii ngën boo dugg ngën ko am na fi wax dëgg yàlla mais tali bi xam naa bu ñu ko tracé woon moom ba ku ne xam euh, am ay panneaux signalisation yu baax. loolu dana ci am solo trop. guddi gi day faral di lëndëm du am du amul lampe amul dara parce que gisuñu fi benn. bu lëndëmee lépp ànd ñuul kukku doo xam fooy génnee foo jul génnee yëpp day am mais tari boo ko tracé guddi gi mu ci la guddi sax la gën a bone waaw bu fekkee dañ ko tracé woon guddi dafa la leer ligne ligne kenn du ko fa yomb ko defee bu fekkee xam nga code dafa la leer ni fii kenn du fu doublé mais fekkee yow kenn tracé ko da nga rek fépp a waaw kooku nag moom ki xam fii rek mooy mën a ñëw dem si jàmm ak salaam waaw. ngay wax sa mbokk chauffeur yi parce que accident yi bëri na de. transport bi ak yooyu moom naaj dégguñu di ci bi yëpp problème mu ñàkk rek la waaw ndax nit ñi ñoom tey te nii dañu daw song commerce du song euh, transport ndax bu fekkee yow da nga nekk seen kër amoo ci amoo foo euh, kiyee li gën a gaaw nit ñi dañu am jom de nekk géree xale yi am fulla ak fay la bëgg dimbali seen waajur yi tey te nii li gën a gaaw ci xale mooy mu dem wuti lu mu dimbalee ay waajuram te fi mu toll nii li gën a gaaw ci mos dara mooy transport boo ñëwee laa laabe commencé mos di yóbbu sa kër boo amee téeméer jox sa yaay ñeen fukk boo ñëwee naa an nga am sa permis commencé dawal ñëpp sonk transport ñëppay dawal loolooy tax mooy. yi nga xamante ne dogguma la euh, transporteurs yi jëloon nañ ko ñu ne eh, dañuy grève. yi moom euh, du ñu neex euh, man neexu ñu jàppale ndax tey li ma si xaw jaaxal mooy. dañuy kaas loi yi tamit dafa mujj bëri de. ñiy kaas ñiy kaas boo boo xoolee man depuis ma xam-xamee ba tey ñoom laa gis ñu ne ji kaas. kon moo laa xamal ni ku si nekk sa intérêt rek ngay doxal loolu laa ci gëm ko ndax bu fekkoon ñeneen ngay gisaat mais même ngay gis ñuy taxaw di yuuxu rek moo laa xamal ni seen intérêt la ñuy dox waaw parce que du ñu retraite ñu bàyyee xale yu ñëw ay mag rek ngay gis ñu wax te mag day am fu mu fu mu toll xam-xamam day jeex ay xale ñoo war ñëw Badou Gora Khouma ngay ñëpp ñoom ñëpp. ah moo leen jiite c'est normal na lu yëngu mu jóg. ci ñëpp moom war a masawu sax. dañu war a dañu war a dàq paa yi dañu war a toog xale yi ñëw. waaw ndax xale yi ñooy xam li xew jamono jamono xale la mais paa yi ñoo fi toog di kaas rek. yow xale nga wala man xale laa ndax. boole la si paa yi 40 ans jërëjëf <laughs> voilà comme ngeen ko gisee euh, li mu développé itam am na solo parce que moom fii la dëkk te tàmm na li nga xamante ni euh, moom mooy yoon bi di yoon sakkal parce que nee na ay paal suma juumul lay lay lay faral di dem donc li ma leen doon wax tout à l'heure ginnaaw bañ jógee si li nga xamante ne moom mooy camion bi nga xamante ne mujj naa doon carcasse donc li nga xamante ni euh, mooy plutôt njaganjaay bi mu doon carcasse camion baa nekk nii euh, góor gi maa ngi ko doon wax tout à si kanam côté chauffeur bi dafa mokk rumba maa ngi leen naan chauffeur bi gisuma ko de waaye bu fekkee it dafa décédé ñu ngi koy massaw bu baax parce que tamit lii métti na bu dee gaañoo it xam nañ ne gaañu gaañu yi métti na lool donc comme ni ngeen ko gisee côté moteur bi fu huile bi di nekk ndox mi tuutee euh, gàttee dafa yàqu mu mel na ne mbëkk-mbëkk bi doy na waa loolu mbaam bi euh, indi na jëya encore fii si suñu réewum Sénégal ginnaaw bañ ko amee yàggul dara ñu koy jooy noppeeguñu ba suñu njiitu réew le président son excellence euh, Macky Sall def deuil national biit mu doon 19 lu ñu annoncé woon si ay nit yu si ñàkk seen bakkan si accident bile fii si Sakal yoonu fi nga xamante mooy Louga donc nag euh, bi payit 19 la woon ñu ñëw fii sur place ñu wax ñu ne euh, quatre dolleeku nañ ci donc mu mel ni ne rek euh, lim bi day doon 23 gis nga tamit maa ngi ko doon wax sànq camion bi it dafa am ay tache de sang comme ni ko kii bi amee woon bu fekkee mën nga ko zoomal internet yi bu ko defee ñoom itam ñu mën koo gis euh, à l'œil gis ngeen ci euh, image yi camion bi moom it dafa am ay taches de sang comme ni ko kii bi amee euh, njaganjaay bi donc mu mel ne nag affaire yi métti na lool lool ñuy masawaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo si loru ak famille yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk donc mu mel ne dañ fay nekk ay chauffeurs yéen ay chauffeurs ngeen wala ay chauffeur ngeen. nuyu naa la. ñu ngi lay delloo nuyu. noo tudd. Alassane Diène. Alassane Diène. waaw. Euh, accident fi la la fekk. non non léegi laa fi ñëw nii damaa jëm Ndar rek jaar fi. naa Ndar nga demoon jaar fi. waaw Ndar euh, nga gisee accident yu bëri yi jamono ji ak euh, en tant que chauffeur yow fii si suñu réewum Sénégal te bii passé rek amoon na ba am plus de quarante morts tey tamit ñu ñëwaat am plus de li nga xamante ne mooy vingt morts. non métti na métti na jël lépp rek xam ne ndaw la suñu borom la. mais aussi tamit di ñaan borom réew mi bu nu mën a jàppale si tali bi tamit kilifa yi diine ñu doole ay ñaan te xam ni tamit at mu bees mi métti na métti na lool ndax safar yi wax di yàlla li ñu jànkoonte si tali bi lépp mënuñu ko nettali ku dul voyage ku ne xamoo ko rek mais di ñaan tamit njiital réew mi daal mu dolli ñoo jàppale bu baax a baax a baax a baax fi mu toll nii mënu wax sax ndax caméra mooy daw jërëjëf merci. sa mbokk chauffeur yi tey ñoo am nakar comme fan waaw di leen ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñoo ci dem rek saa borom yërëm leen suuf seen kaw barke Seexuna al Xadim malade yi saa borom seen bopp ñu jug delluwaat seen yi te barke borom Tuubaa yàlla fi am ñu ngi koy ñaan ci yu baax yëpp. amoo si koo xamante ne rek xam nga ko wala sa mbokk la. non non xamu ko moom ñëpp seen mbokk lan comme ñun ñëpp. ay chauffeur mais koo xamante ne jege na la. non amul ku ma si jege moom waaw waaw mais di ñaanal ñëpp daal ñu jugaat si jàmm ñu jiitu ji saa borom yërëm leen barke Seexul Xadim barki salaam bi métti na ba boo gisee sa wax sax euh, mënu ko bu baax donc nag euh, góor gi euh, lii moo am fii si route si Sakal si département de Louga fi nga xamante mooy région de Louga donc rek ma fàttali que accident bi tey si fajar la am. Euh, si lundi bi si fajar 5 heures du matin mbaam boobu ñu leen wanoon moom moo doon traversé mbëkkanteeg njaganjaay beeg camion mbaam bi sax moom itam daf se mujj ñàkk bakkanam donc nag mu doon lu compliqué te métti lool lool lool donc dañuy daal di dem parce que ñu ngi laajte euh, blessé yi fu ñu nekk donc euh, jox nañu information que actuellement ñu ngi région ñu ngi hôpital régional bu luga donc dañuy daal dem foofu rek en compagnie de góor ñu dem bu ko defee rek ñu ànd ak suñu chauffeur euh, bu ko defee ñu dem xooli ji euh, blessé yi xool rek nan lañ toogee waxtaan ak ñoom waxtaan rescapé ñu mun ñoo dessiner li nga xamante ne moom mooy film accident bi fi am fii si Sakal à tout à l'heure